5M TV yi leen ci anam yu yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak eh, jàmm Kouthia mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool fa nga xam ne rek moo di ca TFM mu nekk nag comédien boo xam ne jàpp nañ ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal moom nag Kouthia jamono ji nag eh, coow la ak ne kuru jëme ca kawam ginnaaw kàdd yoo nga xam ne jamono ji nag ñu ngi koy dégg ci ay audio yoo xam ne ma ngi cee waxtaan ak benn sa ndaw su jigéen di ca wax kàddu yu doy waar lool moom nag Kouthia mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nañ ko lool fi nga xam ne rek moo di Thiété FM jamono ji nag audio ya nga xam ne rek ña ngi cay dégg ak kàddoom nag mu cay wax kàddu yu doy waar lool yoo xam ne rek boo ko déggee rek da ngay taf say nopp kàddu yu doy waar yu yéeme lool moom nag Kouthia nag daan nay wax sax jëme ka nga xam ne rek moo di ca Amina Poté ak ka nga xam ne rek moo di Viviane Ndour eh, di wax sax ki nga xam ne rek moo di Amina Poté ak ki nga xam ne rek moo di Viviane nag ñoom ñaar ñooñu ne ay góor jigéen lañ maanaam daal dañuy sëy ci seen biir mu nekk loo xam ne nag mbir yu doy waar la ki nga xam ne sax moo di Amina Poté jamono ji nga xam ne nag moo da ko bañ na ma ngay dikk nag di nettali fa nga xam ne rek fa la jaar ak Kouthia nag laata sax muy dugg fa nga xam ne rek moo di ca TFM moom nag Amina Poté jamono ji sax daal nay mer lool ca kàddu ya nga xam ne kii di Kouthia nag daan na koy fësal ci ab audio boo xam ne jamono ji nag ma ngay tisaaroo ci Sénégal yi ku nekk rek yaa ngi koy partagé mu nekk nag kàddu yu doy waar yoo xam ne rek ñu ngi koy dégg ci audio ya nga xam ne ku caa nag ma ngi cay daal di wax ak benn xale bu jigéen.